yéenekaay yi nga xam ne kon moom lañ tànnal suñu mbokk itam tey dañ koy tàmbaleeg yéen kaay national bii di la soleil ñoom nag dañoo fësal levée du corps ak nag euh, enterrement bi nga xam ne amal nañ ko demb ci nga ne moom mooy euh, Amadou Moustapha Ba nekkoon ci ministre des finances mhm. et ñu ne nag euh, tout cas Sénégal rendre na ko hommage dalee ko ci levée du corps ba ci hôpital militaire Wakam ba biñ mhm. koy yóbbu en tout cas suul ko fa nga xam ne wala mhm. fekk muy ñooro ñu ne daal wax ya benn la ak lii di témoignage yi daal témoigne ko xam ne kon nit ku en tout cas ku yaat la ku bëri jàmm la woon nit koo xam ne it ku mënoon liggéey la euh, lii daal euh, en tout cas seedal nañ ko ko moom moom di amoon Moustapha Ba nga ñaanal yàlla xare ko aljana d'accord ñu yéeg ci Walf Quotidien ñoom dañoo fësal seen xët bu njëkk li nga xam ne moom mooy CAN deux mille vingt cinq ak li nga ne nag tey Sénégal dina dajeek Burkina Faso ci dix-neuvième te fële ca ci cinquième journée bi nga xam ne nag kon euh, moom mooy qualification bu CAN 2025 mu nag nekk match boo xam ne kon daal ab derbi la pour jël lii di première place su Sénégal boobule fësal nañu itam li nga xam ne moom mooy élection législative ak Dakar bi nga xam ne nag enjeu capital la kon enjeu boo xam ne la daal Dakar daal dafa kon am solo ci li nga xam ne moom mooy ba bi ndax képp koo xam ne rek yo remporté nga lii di. Dakar daanaka da ngay remporter lu am solo daanaka li fi nekk en tout cas ci ay doomu aadama te li fi wootee dafa bëri lool. Mhm. ba tax nag Dakar day en tout cas pàcc bu am solo euh, ci élection yi ba nga xam ne daal képp ku fi gagné rek euh, daanaka da ngay am. Mhm. Euh, daal benn score bo am am bu am solo bu fekkee jëloo rogaat yi di nga am score boo xam ne am solo loolu soxna Fatima. d' accord ñu daal di yéeg ci kaw le mandat. dañoo fësal seen a bu njëkk ba léegi ànd Moustapha Ba moom eh, ñooro nit bëri woon nañ fa lool lool ñu bëri kon nga nañ ko fi nga xam ne mooy këram gu mujj moom Amadou Moustapha Ba seede itam ca moom eh, benn la fësalaat na nit nga xam ne moom mooy eh, mbirum élection bi daal nekk docteur Astou Diagne bu jubbanti Sénégal ak nag waxtaan boo xam ne seq nañ ko ak moom jëmale ci lii de élection législative yi hum ñu daal di taxaw ci l'observateur. ñoom dañoo fësal seen xët bu ñu ne ab mafia euh, bu mag a mag ñu ne euh, loo xam am na ci këru état bu Sénégal ñu ne nag euh, kii di. Euh, ñu ne daal naka la euh, homme d'affaires bi di Tahirou Sarr Mamour ak benn receveur des domaines euh, bu Ngor Almadi gouverneur bu Dakar tudd nañ ko ca ak naka trésor ki nga xam ne moom mooy trésor payeur général naka la ñu nag ñoom ñëpp àndee daal def ab complot loo xam ne kon mhm. dossier faux dossier la mbirum de fonds publics maanaam daal luubal mhm. ay daal koppar yoo xam ne kon alalu ñëpp la muy mbir moo xam ne rek lu doy waar dañu ne confié nañ ko lii di sûreté urbaine mhm. Euh, boo moytuwul na dinañu jëm sax ci li nga xam ne moom mooy ay arrestation ñeer mbir moom ñu daal di yéeg ci kaw tribune yéen kaay ñoom dañoo fësal seen xëpp bu njëkk ñu ne nag euh, li nga xam ne kon euh, lii di police mu koy amal ci convoi yi mooy nag euh, di leen fuyete di xool seen bagage ba di ci nangu yenn mhm. ñu ne nag ana lan moo tax ñu daal singali ci li di coalition sàmm kàddu kese bàyyi mhm. ñetta des comme ñoom daal ñoom loolu la ñu ñaawlu wante it ñëwaat nañ mhm. ci li nga xam ne moom mooy ba léegi mbirum Amadou Moustapha Ba ak nag hommage bu am solo bañ amal ñu ne nag nekk nii kon mu ngay noppalu fa ñuy woowee kon ay euh, sëg yi nga xam ne kon mu ngi nekk Nourou Laye foofu la ca Nioro moom mu fi nekkoon euh, mm-hmm. jëriñ di denc wàllum li nga xam ne moom mooy euh, finance ak budget ñu daal di xuus rek jëm ci lii quotidien ñoom it beneen scandale la ñu fësal mu ngi am ci lii di ministère de la santé ñu ne mm-hmm. nakk lu toll ci mille quatre vingt ci ay agents yoo xam ne kon sax ci situation irrégulière la ñu nekkoon lu toll ci trois cent quatre-vingt-dix-neuf yoo xam ne ay salariés yoo xam ne dañu fay te duñ mm. six cent agents yoo xam ne kon dañoo actif ci li nga xam ne moom mooy fichier solde bi te sax ken kenn répertorié euh, fi nga xam ne moom mooy kon à la base fañ ko waroon lu tollu ci quarante deux millions wala boog quarante waaw quarante deux millions cinq cent cinquante mille francs CFA yoo xam ne dañ ko détourné fële ca Kolda muy daal kon ay. mbir yoo xam ne yu doy waar la gannaaw nag ab fuy bu ñu def ci li nga xam ne mooy ministère de la santé kon ca kii la ko ministre bi dafa sal muy nekk mbir mu euh, doy waar soxna Fatima ñu daal di ci réew mi quotidien réew mi quotidien li ñu fësal seen xët wu njëkk a ñu ne nag Ousmane Sonko euh, récupéré na kon ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, marchand ambulant yi xam nga nag bi ñu fi amee opération déguerpissement nga xam ne ñu marchand ambulant dañoo meroon bu futu jëmale ci mhm. kii di euh, njiital jëwri ñi ñu ne nag kon récupérer leen ndax nag kon woote ba mu woote woon ci Kër Massar ñii di marchand ambulant yi wuy woon nañu ko ñoo ñi nga xam ne mooy douane bu Sénégal ak nag ni ñu bëgg a ñoŋalaatee li nga xam ne mooy seen wàllu liggéey ba tax sax ñu lancé li nga xam ne benn système de suivi électronique boo xam ne pour mbirum marchandise ak lépp loo xam ne rek mbirum transit la euh, ci réewum Sénégal mu nekk lu am solo mun nañu taxaw ci enquête. yéen kay levée du ki nga xam ne mooy Amadou Moussa Fa ba léegi la ñu fësal ñu ne nag delloo nañ en tout cas njukkal ki nga xam ne ku yaatu xol la woon koo xam ne nag euh, daal ku bëri jàmm la woon koo xam ne amaloon na njëriñ li nga xam ne mooy ay nitam. Mhm. ak it euh, askanam kon loolu la ñu xamle wante it euh, li nga xam ne rek mooy ba léegi ñi fa teewaloon nguur gi te muy nag ministre bi nga xam ne moo ko uutu ci bopp mhm. ministre des finances. ak nag ministre des forces armées kon te nañ fa réewum Sénégal soxna Fatima. ñu daal di ci tribune sport. moom lañ koy jeexale Sénégal Burkina Faso ñu am suba tey jii à 19h Mali moom la ñu fësal dans le cadre du groupe L mu nekk nag ab combat ab match boo xam ne combat derby ñu ne lañ ko woowee mm. tax nag première place. ba lañ cay jongante ku doon sama ci ñaar da ngay jël lii di mhm. première place bi soxna Fatima ñu ñaanal suñu gaynde ñu am ca ndam incha allah Coumba Ndoffène te dañ si jëlee sax ndam ndax place euh, boobu noonu première bu ñu xëccoo ñun ñoo koy jiitu su soobee